maaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli seen sam ñu leen di nuyu di delluwaat nit ñi si ñu xam ni tawat ak dee sore nañu nit ki boo feebaree ngay gëm yàlla te yiital yàlla te sabablu nag dem faju ci day faju waa ji dafa am hépatite B ba mu nekk si cancer mu ñëw seet si genn góor bi mu ñëwee góor gi daal ni góor gi rek man dañ ma àppal ni man nanga mi weer a ma sama dund góor gi ko neen dañuy fen waaye dañuy fen waaye di ànd ak moom ba ci benn garabu siddéem mu mun ko dell wit wit doom boo wit xob boo wit si siddéem gi jàngal juróom-ñaari fàttee seex xale bi def ko ba muy juróom-ñaari xob ni ko demal ñibbi ba fi ma lay wax ak yow xale baa ngi dox soxlaam dañ ko àppaloon ay weer xale baa ngi dundaan na te muy dox soxlaam nit ñëw na fii man ki ma ko appelé sax sama benn xarit la bu nekk Suisse fekk am ko hépatite amoon hépatite ba mu sonal ko noonu aussi mu tegtal ko fii ba mu ñëwee ma ne ko nag xam naa état bi du ma jox ay garab yu diis yow mais naa la tegtal ñaar ni ko demal ngay jël xobu corossol tey nekk fruit ginnaaw yàlla na ma ko waxoon la ko defee fi mu ne ma ngi doxee soxlaam te duñ ko apprendre moom it pour wax rek joxe ñaar exemple yooyu wax ne rek na nit ñi di delloo ci seen xel xam tawat ñëpp ay feebar mais feebar saa yàlla garab la njëkk a bind moom muy bind tawat fii ñaata nit lañ fi indi ñoo xam bi leen indi leen teg chaise roulante di leen jàppoo ñu ngi def seen soxla fi nekk kenn xamul mu tool si domaine yu bëree bëri bëri nag benn waaye ñëw na fii am neer sciatique ñëw di soox tànk ma ne ko lan la man ma ne ma liggéey laa jóge mu ne ko liggéey mun naa ma ne ko doxal avancé mu dox dem ñëw ma ne ko non ma ne ko taxawal sa point de pied mu taxaw sa point de pied bi ma ne ko non yow nerf sciatique nga am jox ko benn traitement bi mu ko jëlee weer bi mu ñëwaatee du taxaw bi du tëb ni ma sëñ bi weer naa tëb. man ko gaay dañ leen nax rek te buñ ko wax ñu naan ko liggéey bi sax moo kon keneen na ko moo am yu kenn xamul la ñuy wax nit ñi na nit ñi delloo seen xel am na ko fi ñëw bu yàggul tawat bi ñàkk solo la am mais jaay dañu ko si teeneem dem na ba jaay si teeneem dugal ko si feebar bi si naxee kese rek loolu lañ lay wax loolu lañ lay wax dal leen seen xel. léeg leen ndaw lay dal nit dafa xamul rek benn jigéen ñëw na fii bi mu ñëwee fii ni ma mën daal dama sonn dama am ay palpitation ay crampe am lu dox sama yaram bi sama xol bi tëgg ma jaaxle sama yaram bi maas ma ne ko an say analyse mu génn jalu kayit bu toll ni tegal ma ne ma lii daal ay ordonnance ay ay analyse ak yooyu la dépendance lu jigéen deux cent mille francs ma ne ko léegi loolu docteur yi wax bi ñu pare mu ne daal bi ñu ma defloo analyse ba pare dañ ne ma dara jotul stress moo la jàppale stress ma ne ko stress rek la ñu wax te deux ma ne ko d' en jeune yabu la mun ma si daf may faral daal man ne en France boo gisee rhumatisme altitude yu bëreetu ko mun am ne ko parce que dañuy teel a faj en jeune si xale na lu ma soupçonné mun a am ne ko demal nga defal ma boole ko benn waaye mu defal ko analyse bi mu ñëwee aspro la ñu ko defal. laa ko def loo calcium magnésium bi mu ñëw effectivement assoudé positif calcium bi manqué magnésium manqué man ko lii moo jàpp du leneen ma ne ko angine bi nga amoon fayoo ko normalement moo indi dermatite péricube bi manque calcium bi magnésium moo indi spasme fri tax ngay am ay palpitation ak ay fourmillement yi ma doon moo tax doon nelaw guddi lii rek mooy sa feebar femme dafa sigi dama xool c'est que nit ñi ñoo dul def effort parfois nit ki bu ñëwee da nga koy interroger boo ko interroger doo xam. ki lay jàmbal bopp buy metti war nga xalaat du bëri que ni seere kese day metti bopp euh, bakkan yu fàtt muy sinusite day metti bopp hépatite B day metti bopp paludisme day metti bopp drépano day metti bopp ak yeneen ak yeneen dafa bari la fièvre typhoïde soo ko amee day metti bopp mais li ñuy différencier bi ak fièvre typhoïde mooy fièvre typhoïde tàngoor yaram bi nga am day jour en jour mais nga defal ko bi daal boo defee analyse bi daal bu positif nga ne moom la bu dee sibru nga soupçonné defal ko euh, goutte épaisse et cetera bu dee drépano defal ko test demel su dee hépatite nga xalaat defal ko antigène mu xool et loolu dafa am lu ñuy gëstu pour xam li dal nit ki lan la ay saan kese day metti bopp nit cholestérol bu yëg day metti bopp nit tension bu yëg day metti bopp tension wàcc topp mën na metti bopp kon yooyu dafa war a orienté bu leen ñëwee na la sama biir day metti nga xool biir bi fu muy mettee dangay xool ndax si digg bi la fii diggante bii nga xam ne œsophage bi la ma nekk ne œsophage bu dee biir bi la côté gauche mën nekk un problème gastrique bu dee si kaw nekk le cœur bu dee côté bii droit ma nekk le fois wala des calculs biliaires ak yu mel noonu bu dee douleur yu nekk fii ci ginnaaw mën nañu rechercher une lombalgie un bën de nerf mën nañu rechercher aussi dafa mélange kon yooyu dafa war a orienter nit ki cest à nit ki bu ñëwee da ngay jéem a xool li ko dal lan la boo waxtaanee ma ba noppi nga ab lu la sa xel jox nga recherche loolu pour am confirmation mais fa coobul da ngay nit ñëw rek loolu da nga ma nga jël garab jox ko kon nañuy defaat effort si nit ñi di sonn si nit ñi beneen bi mooy aussi nit ñi bu nañuy dem hôpital di gëstu seen yaram ba xam lu si nekk bul tëdd rek bu sa saw balee nga ànd ak mar ak xiif demal ba fi suugar bu fekkee saw bi dafay jigante soo sawee mu des dama def ECB yu xool nga xam loo infection bu dee guddi nga ëpp looy jug di saw dama recherche seen xamoo problème prostate dañ xool sa PSA defal yu découvert après yu neex lu am boo sëy sa borom kër ay at amuleen doom na ku ne jug mais malheureusement léegi jigéen rek la ñuy poussé di dem faj ci or que li si ëpp si góor ñi lay doon couple bi moom mujj a faj fii matagul weer def nañ fukki at juróom-benn fu ne jaar nañ fu nekk di ñëwee fii laa woo jëkkër ji bi ma ko fexee traitement trois mois la soxna eh, bi mu fi ñëwee ba ñu ba muy wér am nekk ëmb ak yooyu yàggul ay nit ki dafay gëstu te bu doom amul nañ ñëpp jug xool na ku ne jug xool. bu dee ku góor dina def spermogramme ñu xool ndoxam na def échographie testiculaire ñu xool testicule na amul varicocèle na def VHLH ndax normal na def testostérone bu dee ku jigéen ki na def une échographie pelvienne su si mënee teg une sténosalpingographie muy xool trompe bi baax na bu demee def prélèvement vaginal na ko def yooyu dafay leeral day dimbali kii faj xam bu muy teg tànkam bu dee dañ la fibrome nga am te matul 5 centimètres jarul opéré mun nga essayer faju si garabu bu dee dañ la induction ovarienne la wala kyste de l'ovaire duñ mën a faj la jarul bu dee polype la polype jarul opéré moo gën a neex faj sax kyste polype rek ay soccil na si biir kanam la su dee ku góor ki soo defee spermogramme affaire yi faible tant que amuñ azoospermie mun nga jëm commencé traité boo xa sévère nag walla yi dee bari defal ko ab test scolaire bu dee bari ko sell kenn mënu la faj te def opération am na fu ñu àgg foog nga def opération loolu dafa la leer dafa la te it dafa am lu am solo li ñuy jël muy prévention muy fego xool sa lekk di jël légume ak fruit wàññi pati wàññi xoromu guddi bi dafa am solo boo dee ju guddi gi du saw lu bëri si te ëppal quarante-cinq ans xool sa prostate ndax saw guddi bu bëree prostate la ñu ne nit ñi delluwaat di gëstu seen yaram di xool seen yaram ndax feebar daal teel a jug daf am solo te it bu doñ yi ñëw sa ween rek nga ni cancer ñëw na ñun am na ko ma mujj a faj fii quoi ne juróom benn doñ yi newoon si ween bi ñetti weer laa ko jox tellement lépp disparaître agul sa cancer xëy na boo toogoon di xaar ak kii bu yàgg mën naa di leen mais am na doñ yu bëri yoo xam ne mën nañ leen faj jarul dindi jarul leen da ngay gëstu d' abord kon daal lii lañu indi woon dañuy bañ vidéo bi dépassé dix minutes ñu ngi leen di ziar di ci yeneen jamono pour yaatal.